ndax fa fayeekum bourse familiale yi moon na ma delloo si feebaru coronavirus ci dëkk bu sell bi di Touba gannaaw ba nga xamee ne soxna sa desoon ca centre de santé bu daaru mën naan wér na ku góor ko di commerçant bi nu yóbbu ko ca ndakaaru laaj bi jar naa samp ndax te li nga xam ne gis nañ ko ci bëccëgu talaata bi ci xayra doy na waar mbooloo mu takkoo takku ñëpp rang di rajax rajaxloo ngir jël seeni koppar askan wi dëkk ci xeer gis ne faaw rek kilifa yi jël ci ay matuwaay na mu gën a gaawee ndaxte dajaloo bi moom la ñuy bañ te lii moom mi ngi bëgg jéggi dayoo. poste bi wax dëgg yàlla nii ñu koy defee moom ñu bari ñaawlu nañ ko man sax ci bokk naa ñu bokk naa ci ñu koy ñaawlu en tant que jumaa yi Tuubaa yi ñu ko jumaa yi réew mi yëpp jullit yëpp ñuy tëj seen jumaa yi ndax bañ mbooloo tey di aar jàngoro ji jàngoro ji ñooñu ñu tax ñu tëj jumaa yi nga xam ne a jaamoo yàlla di ñaan yàlla suñu borom jëlee fi mbas mi ñu tëj ndax am dañ ko mën a tëj asek poste poste yi ak banque yi nga xam koy ubbi mbooloo mi fees del tey ko gis lii mbooloo mi fees del wax dëgg yàlla li mérite wut maanaam ak maanaam ne dañ tëj jumaa yi fekk raj raj loo bi bañ ci oto yi ak saret yi mbooloo maa ngi ni fees del xoola bundi kër baara doli ak poste bi fi nekk ci mbooloo jëduwut yéen yéen ko tegal seen bopp seen bët wax dëgg yàlla ñaaw nañ ko lu trop parce que rafetul parce que yi bu fekkee ne maanaam dañuy fay bëgg a dimbali wala ñu leen wapar par fukki nit bu bu set jël fukk nit dox leen ko mo gën dajale mboolem fi li fa nek ñu ëpp na téméré nit gën gën ko kon loolu wax dëgg yàlla daluwut te it ñu koy ñaawlu baax baax mën nañu dimbalé nit ñi te duñ leen rawati rawatina fi jamono toll nga xamantene aduna bëpp dafa am lu leen yëngal tital leen muy jangoro ji ñuy wax covid 19 kenn ku nek am ci sa wàll wo xamne war nga ko bay muy sa waar muy nga moytu jël mesure prévention yi mboolem li docteur yi dégle ñu du ko def rawatina nag dëkk bi nga xam ne moom lañ nekk muy Touba nga xam ne barki démboo Ndiaye la ñuy wax ne am nañ benn cas euh, communautaire. cas communautaire boobu ñu am war naa tiitloo kenn ku nekk ba soo doon def lu mel nii nga moytu ko waaye nag nit ñi amuñu pexe man dama koy wax wax naa leen ko ci suba ñi nga gis fii nii ñàkk pexe tax ñu koy def ndax lii kum neex ku sañoon ku sañoon amee ko ni ko bëggee doo ko def du responsabilité nit ñi waaye responsabilité état bi fay xaalis bii la su fekkee daf leen a bëgg a dimbale xam ci anam gum leen mën a mana ko mën na koo def du am kon nyom ni même buñ ci amee responsabilité amuñu pexe ndax borom kër bu néew doole amul dara su gisee ku ne ko kaay ma dimbale la lam koy dimbalee lu mu néew néew ak lu bari bari dana ko jaral dem jëli ko. dimbale ñu koy fayiku ñu def ko wax dëgg yàlla maanaam dajale bi ñu fi def ne ñoom ñu ngi nii xiif nañ mar nañ lekku ñu nañu foo lañ jóge dajalo fi kon lolu buñu ñu dimbali ci benen moyen buñu ñu fayé ba duñ sonu nii wax dëgg ñu def ko mo gën. kon état lañuy interpeller ak autorité dëkk bi ñu def seen liggéey ci li ñi ñu recenser leen am nañ seen numéro téléphone xam nañ seen kër xam nañ seen adresse kenn ku ne bo démé ci registre ba bind nañ fa sa tour bind fa sa numéro téléphone bind fa sa adresse suñ la bëggee dimbalé xam nañ ni ñuy def ba nga jot ci ta ndaje du am fi kon li mom du kenn ku dut état nañ ko wax ta dee duñ wax kenn ku dul état kilifa yi dëkk bi def nañ li ñu war a def sëñ Mountakha def na li mu war a def ah kilifa yi euh, yi mooy docteur yeeg def nañ li ñu war a def lépp mënuñoo weesu jëf ak wax. li des nag mooy état moom moo ko man mooy dindi ak loxo lii nag loxo moo koy dindi ñii mën nañ leen a recenser kenn ku ne ñu woo la téléphone. dugalal la xaalis bi ñu lay dugalal moo xam ci seen téléphone lañ koy dugal moo xam dañ lay wax ne la bis sangam ñëwal ci post bi nga jël si ko bu boobaa ndaje mi du am. lu leen waaye wax nag tooñ leen néew gi doole ku amul buñ ne koo kaay ma dimbale la mu gis fuñ ko mën a dimbale lu mën di lu mën di daj ngir jot ca ndimbal la dana dem ngir daj ngir jot ca ñoom ñi ñëpp xam nañ ne jàngoro ji lëmbee adduna bi day wàlle te bokk na ci lii tax mu walle mooy daje yii waaye mënuñu koo moytu ndax seen yaakaar moo fi nekk kon na état bi jël ay responsabilités mu nekk lu doy waar lu nga xam ne kilifa yi taxawoon temb ci jël seen matuwaay ndaxte dajaloo yi moom faw rek mu jeex tàkk ci dëkk bu sell bii ba feebar bi génn faw ci réew mi loolu it ñu koy ragal gannaaw ba nga xamee ni aide alimentaire bi egg si na